yuriduuna li yutfiu noor allahi bi afwahim ay yuridu an yutfiu noor allahi bi afwahim wallahu mutimu nuuru ak illa an wa yaba allahu illa an yutima nuuruhu walaw kariha alkaafiruun kon ñoom loolu neexu leen sa mënuñ ci dara kon nañ xam ne lislaam suñ boro moo ko yëkkate gaaranteel gaaranteel ko boppam tam kenn mënu ci dara wa jaala kalimata lisina kafaru sufla wa kalimatillahi xulia kon loolu nañ xam ne jër sa tii jër ta xalaat ñoom ñoo koy def nag lañuy def du leen weesu ndax naka jëkk nag euh, suñ borom wax na ko ci alxuraan ba tey walla tarda anka alyahudu walla nasara xata tatabia millatahum te ñu itam fas yéenuñ ko def ba àddina tukki mooy li ñor rek mooy lislaam rawatina fii nga xam fii nga ñu fekk di Touba Serigne Touba léppam di rasulullahi ma àggoon ci di wax ne mahat mahabbatiya al muxtaara sayidina xubbil maxaaniya wal ahlina wa ahli wa awlaadil muskaana li sanada waxaatit fi neen ne li rajulil Mustafa an shawkatin wa xayatin wa aqraba kon loolu képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa rek eh, war ngaa nekk fidaaw war ngaa nekk ci di défendre l'islam di défendre rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax barkeeloo ko ci loolu nga xam ne Sëriñ Tuubaa daana ko def ci diggam rasulullahi sallallahu alayhi ndax ndegam moo waxoon ne sama lex bii laa koy lalal ci suuf ba génn dëkk wala lu koy nur wala jaan wala lu ko jege du du du jege rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muhammadun xayru man yamshi ala xadamin muhammadun xayru man lillahi qad sajada kon Serigne Touba mboolem lu ñu tagge rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ci gën a yéeme wa huwa akmalul wara loolu doy na sëkk wa huwa akmalul wara xalxan wa xulxan zahara wal mithlu xattu lan yura wala yura fi chemi kon loolu nañ xam ne ñoom luñ gën a xeex lislaam rek suñ borom di ko gën a yëkkati kon loolu rek laa ci doon am lu ci jeexale di wax ñëpp na seenum xel dal ci xam ne noonu lislaam yooyu yi nga xam ne mosuñoo dañ ci di jéem xeex lislaam saa suñ xëyee di gën a xeex lislaam rek lislaam di gën a yëkkati ndax ñoom ñun dañoo nekk ci dëgg ñoom nekk ci ak neen alxaqu thabitun wa amal baatilu in ala fa saahiqul musaafir kon mënuñu am daw dëgg mukk ci kaw li nga xam ne mooy lislaam kon nag ñun ñëpp nañ jël suñ jëm ak suñ lépp def ko ak njotu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa fas yéene dox ci képp koo xam ne yaa ngi jéem ngir jéem màbb la doo ko mën waaye la ñu ca war nag ci doomu aadama war nañ ko def jàmmarloog noonu lislaam yi